dalal ki nga xam ne kii nekkoon na sax mentor ci programme bi nga xam ne moom la Right to Play di déroulé mu nekk entraîneur national ci nga xam ne mooy équipe nationale lu bëre bi ci jigéen ñi moom tey lañ bëgg a waxtaan gën gën a dugg ci li nga xam ne lii rek mooy bëre jigéen ñi lan mooy jafe-jafe yi nan lañ mën a def ba ñoŋali ko ak aussi yan jéego la ci autorités yi war a def pour ñu permettre xale yi nga xam ne ñoo nekk Casamance ni ñu ko fi defee ñu koy defee fépp Sénégal dañ koy bàyyi mu présenté wu ñu tàmbalee mission coach ñu ngi lay ziar. Euh, di rafetlu euh, communication bi nek di def ni danako suñ ko daan am saa yu peut-être que lu def ni day gëna am mana ñin ñi gën ka xam. Mm-hmm. voilà. bëgg nañ nga wax ñu yow yaay kan nan nga tudd ak no man ma ngi tudd Evelyne Diata Gaye madame Gaye je suis de Moulom Kassa euh, je suis l'entraîneur national de l'équipe féminine du Sénégal de lutte du Sénégal. je suis enseignante d'éducation physique et sportive de formation. Voilà, pour ne faire que citer ces deux mhm. fonctions. Aujourd'hui, je suis euh, enseignante chercheur en didactique de combat à l'UCAT, mhm. spécialement à l'INSEF de Dakar, là où je suis sortie en tant qu'enseignante d'éducation physique et sportive. Mhm. Euh, Evelyne yow yaay tagat euh, xalé yi ci walum bëri ci jigen ñi est-ce que mën nañ xam sa jaar-jaar ci lamb jigen danaka euh, waaw man may tagat xalé yi jigen yi bala may doon entraîneur doonoon na athlète hmm, man Lansana li mo nekkon sama entraîneur mu formé ma tay ma kontaan ci formation am mhm. ah, parce que gis na ci lu bëri lo xam amal na ma njëriñ tay nous nous, me nous nous na bëggee former, xale yu itam wala lu donc man def naa bëre surtout lutte olympique féminine j'ai été trois fois championne d'Afrique deux fois médaille d'argent et deux fois médaille de bronze j'ai été cinquième au championnat du monde à organiser aux États-Unis à New York et de nos jours je suis l'entraîneur national donc daanaka kontaan rek si li may def sama liggéey eh, di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ma taxaw ba ma yegg tey fi ma yegg nii tey. Mm-hmm. voilà. Euh, bu ñuy wax euh, bëre ci jigéen ñi daanaka Casamance la ko ñëpp xamee euh, loolu lu ñu donn ci maam la wala xale yi ñoo nu ñu bindoo la. lutte si Casamance am na localité yoo xam ne. bokk na si seen culture suma ma dék dëkk comme Lomp Oussouye même euh ma wax fi ma gëna xam bu baaxa baax moy mu Lomp fi ma ñun de certes pratiqué wuñu ko lutte féminine lu bëri mais au moins fekke nañu ay une ou deux éditions yo xamné ñun suñu bop dañ doon dem di bëri entre ñun jigéen yi mhm. quartier entre quartier interquartier et après bi ma renseigné dañ ma bu njëkk ba jigéen dañ doon bëri comme góor yi nu ñu daan bëree. bu ñu paree la saison des pluies si la ñuy def seen bëri yëpp jigéen yi dañuy bëri ñu jógee village bi dem si village bi di bëri. donc mun naa ne lu ñu donn si suñu cosaanu dëkk la. voilà cosaan la te yàlla def tey boobu lu ñu ngi jàpp comme culture ou comme cosaan.

effectivement euh, je peux dire que les 99% des champions de lutte olympique nous viennent du département de Souy. Et même chez les hommes aussi. Hein. Et la lutte olympique est pratiquée généralement par des Casacés, mhm. des gars de la Casamance. Mhm. Donc, parce que dans Mengo, peut-être aussi, un aspect, lutte olympique bi euh, Sénégal xamaguñu ko bu baax ko vulgarisation am des mais bo xolé ñun de man bima duggé béré ba tay lutte olympique wa Casamance ñu si gëna a euh, problème suñ un problème moy lañ dul am les 97 les 125 kilos duñ ko am. Mm-hmm. mais depuis petite catégorie moins 57 kilos ba ay 97 daan nañ ko équipe nationale Isabelle Sambou neuf fois championne d'Afrique Anta Sambou cinq fois championne d'Afrique ou plus euh, Nahami Sambou euh, on me dit souvent xanaa équipe bi c'est une équipe formée que de Diola mm-hmm. je réponds je ne peux prendre que ce que j'ai vu Donc, gisul mu ko mu mm-hmm. donc y en a plein les Jean Bernard, les Adama Diata de Cabrousse, les Nicolas Diata, euh, Omar Faye de Boucot Djemberin. Ils sont nombreux. Si je les mets, je Pour ne citer que ces personnes-là. Donc, champions en lutte olympique, fille le Ndjogé. Donc, Canada daaw bu ñu les championnat d'Afrique bi dañ si jël quelques séries de ñu yóbbu am nañ si kenn médaille comme Pape Ndiaye. Mhm. donc mais Nyom lu bëri boo leen nee kaay leen def lutte olympique dañ lay dafa amul kalis, donc joolaay comme dañ ko jàpp comme loisir ou Casa Sey dañ ko jàpp comme loisir moo tax ñu gën si bëre. ah tey yàgg ngeen ci bëre bi surtout fii à Oussouye am na fi grenier mais dañu instant dafa euh, ba ku ni inspecteur Sadio bi mu ñëwee def na ci liggéey bu am solo pour bëre bi jógaat nan ngeen gisee taxawaay boobu. ñun de ku ñu mun taxaw C'est pour le développement de cette lutte là ñu nous koy sant bu comme inspecteur Sadio mais avant Bobo, euh, man j'étais enseignante au lycée Djignabo de Ziguinchor mhm. et te bi de 2008 l'année que 2009 Mais bi ma jógee 2018. Mhm. après 2018 comme Ninkawahe, nga ko affaire bi mhm. parce que un il n'y a pas les moyens qu'il faut pour l'accompagnement de ces athlètes. Amoul. Ben bah, imagine toi vous organisez un VSD yéen entraîneurs yi yéen a cotiser seen biir pour organiser VSD mm. mooy pour ngeen may xale yi lu ñuy lekk buñ ko cotiser ba j'amène tout le monde à la salle de lutte de Ziguinchor mooy salle bi nekk euh, Aline à Diatta foofu la ñuy bëree buñ paree ñi nettoyé foofu la xale yi di tëdd mm-hmm. xam nga il faut nga am koo xam ne na vraiment lu muy def pour accepter condition conditions. te ñoom ñooy fay seen passe pour nous. yow li ngay out passe pour nga may avons lu ñuy passe lu ñuy sango fu ñuy sango passe ñuy fóotee li ci des paas bi ñoom ñoo mais malgré tout ça nous avons ko une dañuy am ay Nous avons fait 50 mot pour nous. yoo xam bëgg nañ ko mais suñ problème majeur est accompagnement sur le plan infrastructurel sur le plan financier et sur le plan matériel sur tous les plans donc la ressource humaine est là nee naa bu amul accompagnement. Mhm. day métti. Mhm. day métti torop mhm. voilà. Euh, gis nañ liggéey boobu inspecteur doon def tey daanaka ci la right to play sukkandiku ba mën a yéen mën ay activité parce que boo xoolee bokk na si discipline phare yi ñu tànn ci moom basket football aussi la ak euh, déggal ba Sédhiou la ak Ziguinchor mais aussi dañu ne spécifiquement la nan ngeen gisee choix boobu right to play def. ñu di right to play ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que ñëwoon naa seen benn VSD bu ñu organiser. Abou de du lu ñuy def moy gërëm leen rek di leen sante, di leen ñaan pour ñu mënu ñu ñu mun continuer ci cette lancée. Mm-hmm. parce que def nañu ba xalé yu bari gis nañ si seen bopp. Mm-hmm. Ah, même bu doon wuñu ci lu bari, mais lu ñuy am ci expérience day tax ba ñu gëna bëgg discipline bi peut-être suba ñu mëna am ay champions mm-hmm. donc right to play en collaboration avec l'inspecteur départemental du département de Souy nous avons leen di gërëm rek di leen sant encore di ñaan loolu ñaan c'est une demande une requête Si nous mënee def plus que ça ñun dinañ kontaan. Mm-hmm. ñun dañu contents, parce que athlète boo xam ne yaa ngi com bëree si sa biir salle te amoo compétition ne peut pas évaluer sa C'est ce que la ñuy ñaan. On bu ñu defee ba fan dana jot ñu a def un championnat national la ñu mu xale yëpp ku nekk mun si tester boppam. ku nekk xam fu mu toll bu ñu saison ku mun ku nekk a man mais loolu bu amul ñun duñ ko parce que n'a pas les moyens. on n'a pas les moyens. Euh, nga lu jëm ci matériel financier ak euh, infrastructurel dafa am xam nga bëri jigen ñu bëri wuñ ko bët bu bët bu bët bu xawa a baax tey lan ngay wax wajur yi nga xam am nañ doom ñu am ay aptitude ci lolu mais xalé yi ba mënu ñu gis ñu émerger euh, mën na ne par rapport à à cette pratique moy bëre bi département Oussouye moo mo ci xawa tané parce que bokkoon ci sen culture mm-hmm. mais bo xolé yenen département yi dañ lay nane ani ak man dans toutes les disciplines la présence féminine mhm. pourquoi pas la lutte du moment où dañuy na la lutte c'est notre sport roi un sport roi ne peut pas compter que sur les hommes mhm. on doit e faire l'implication des femmes maintenant pour que nous yi pratiquer en pleine aisance ou avec aisance il faut ñu am ñu leen mhm. la famille d'abord

may nañ même bu doon ben as ça, ça ça ça c'est une source de réconfort. Mm-hmm. mais yow boo demee ba ñëw mayuñu la dara da ngay na ah jarul may continuer mais ñepp buñ ci jappé ku nekk si duggal ci loxom man je sais que la lutte va aller parce que bëri bi du problème mu xale mais problème suivi la. Mm-hmm. Euh, certes dañuy naan xalé bu jigen koy def sport tu n'auras pas le temps de faire ceci de faire cela du moment où il y a la scolarisation de tout le monde, on doit permettre aux filles de faire des activités physiques qu'elles veulent. Mhm. non là que tu sais. Mhm. parce que d'où question dans les def moi moo nga doon góor nga def moi moo nga bàyyi sa djanga, nga def bëre moo nga bañ obéir tes parents. Mhm. je sais que en sport de combat quand on a un enfant perturbateur et qu'il fasse le combat. il va se ranger. quand on a un enfant qui est timide et qu'il vient au sport de combat a une ouverture donc il s'adapte donc day a une timidité donc pourquoi ne pas encourager nos enfants man parents surtout parce que nous sommes que première source de motivation les parents parce que les parents doivent a pratiquer keneen dina ko a mais les parents nous peuvent pas voilà c'est ça voilà nous yi ñu fàttali ñu euh, coach Evelyne euh, Djata Gaye mu nekk entraîneur national euh, lutte euh, féminine euh, ñu ngi nag ak sumuñ daataangoo bu waa AV TV ah Avenir TV en même temps Actu Sport TV bu fii ci diwaanu aussi mais aussi di MR Sénégal yëpp comme Génération FM bi nga xam ne bi moo lëkkaloo ak moom coach lu ñuy suñu dernière partie émission dañ dañ koy da nga wax lu am solo mooy da nga ñaan waajur yi ñu bàyyi mais gis nañ ne bëre bi Ziguinchor kese la yam wala usu sax la yam pratiquement ta tay am nañ arène nationale mais duñ fa gis jigen di fa bëree gala de lutte jigéen du fa am euh, tay est-ce que CNG bi comme yow mi nek antenne nationale mos ngeen tok di xalat ci nu ngeen di def ba bëri jigen law Sénégal. euh effectivement comme niñ ko waxé CNG mu ngi ci xalat depuis bu yàgg nan la ñuy def ba lutte féminine bi gëna law ci bir Sénégal mais le problème en est que la majorité des promoteurs ñoom seen combat lutte avec frappe lañ koy defee. Mhm. ou la lutte masculine. Mhm. donc lutte féminine amaguñu gisaguma ku je connais. une seule fois Ndeye Atlanta. waaw Ziguinchor. Mhm. organiser na bëri jigéen mais Ziguinchor la ko fait te nan la récompenser les athlètes la panier de lutte de la lutteuse le ko tuddee. day ut effets de toilette beaucoup de choses mu def dans un panier accompagné de 15 000. Après, nous avons mhm. la panier, le panier de la lutteuse. Mhm. Donc, en dehors de l'Atlanta, Atlanta, bi fini fi organisé un combat spécifique aux femmes. Mhm. Ndefleng. waaw une organisation sérieuse. Nous avons invité les femmes à yi dem bëre. Mais c'était pas à l'arène nationale. Mhm. C'était à cette époque, c'était à Ibomar Diop. Yep. lañ après gaay gis xalé di bëri ñu ñu on va pérenniser cette cette cette chose là. Mhm. Mais après gisuñu dara. Mhm. Donc té CNG mu ngi ci Mais aussi mënuma ci prononcer lu bëri parce que je suis pas trop proche du CNG. Je suis pas trop impliqué de leurs activités par rapport à leur décision surtout. Mhm. man sama walu bop moy tagat xalé bu regroupement amé ma dem. Mhm. def xalé regroupement bi entraîner perfectionner, après ñu dem. Ah. mais je sais que ñu ngi siy dox. Mhm. ñu ci dox nan la ñuy def ba mu réussir. il faudra impliquer toutes les régions. Tout à fait. et la vulgarisation aussi peut nous aider. à à à faire apparaître cette pratique sportive ou à visualiser cette pratique sportive. Mhm. Ah, Taï CNG c'est vrai que mon nom, coupe euh, coupe euh, drapeau chef de l'État gisoon naa ci donc ça, veut dire que nous ngi teg jéego yi nan ngeen gisee loolu bi mu amee. Euh, man de parce que c'est une ancienne doléance pourquoi pas ne pas intégrer les femmes ou les filles dans la compétition, une seule compétition nationale qu'on a, c'est le drapeau du chef de l'État. C'est la seule compétition qu'organise le Sénégal par rapport à la lutte nationale. Bon, Bouni Deme bir ce nouveau CNG dirigé par Birasen, nous qui sommes tous dougal ay mais avant il y a eu un drapeau du chef de l'état à Hambourg dougalon nañu euh, la lutte féminine ñu après le nouveau CNG mise plus sur les U17 U18. C'est petite catégorie c'est mm. par rapport aux JO de 2026. Mm-hmm. quelle sera la compétence qu'on aura pour pouvoir défendre les couleurs, du Sénégal pour pouvoir représenter dignement le Sénégal. Mm-hmm. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu une massive présentation mhm. de, des femmes en pratique par rapport au drapeau du chef de l'État mhm. passé. mais il a quand même compétition de circonstances, pour mbir passé ah, de war ah parce que toutes les compétitions africaines de lutte ont participé. Mhm. et il fut un temps euh, la lutte féminine au Sénégal commençait à avoir des problèmes parce qu'on n'avait pas la relève qu'il faut. Mhm. Donc comme nous sommes na man maa mhm. comme ça de ce fait je nga xale li que compétition si vous yaram boo demee compétition di si vous mhm. mais bu nekkul sa yaram des problèmes donc bu ñu leen dugalee déjà drapeau du chef de l'État c'est un grand événement au Sénégal. Mm-hmm. dinañu gis moom population bi dinañu gis lépp. Mm-hmm. donc bu ñu compétition dañuy adapter. wu peut-être les circonstances qui seront un peu différentes. Mm-hmm. mais dinañu adapté wu. voilà. coach euh, fi ñuy jeexalee mooy euh, bëre bi fii la cosaanoo Casamance Ziguinchor aussi mais gis nañ ne gox yooyu yëpp amul benn bërëb boo xam ne bii xale yi mën nañ fa dajaloo di entraîner stade Aline Sitoé ku dëkk aussi mënul déplacer wu Aline Sitoé chaque jour tay lan ngay ñax suñu autorité yi rawatina collectivité territoriale parce que aussi compétence transférée le sport ngir ñu jappalé len au moins mu am ay salle fi yeen bu ngeen ñëwee mën fi tagat xalé yi. man limay ñax autorité yi mooy ñoom construire des infrastructures sportives ku nekk fi nga nekk ñoon ñu jàppalante ba am une infrastructure sportive même si elle est multifonctionnelle on va s'adapter à cette infrastructure. Parce que nous, on est pratiquer une activité sportive à mon infrastructure. Ça ne rime pas. Euh, les lutteurs olympiques, nous avons commencé à lutter sur le sable. Mais si nous sur le tapis, ils ont certains problèmes par rapport à l'adaptation. Mm-hmm. Et si on n'a pas un temps important d'entraînement, ça crée des problèmes. Mm-hmm. Pour nous, le tapis, pour nous, nous tapis, des tapis. Mm-hmm. Donc, si nous avons une infrastructure, commune, bu commune, day am une salle qui xamné équipée dañ koy équiper en tapis même si des tapis de judo mhm. ou de lutte mhm. l'essentiel qu'on ait des salles pour pratiquer les deux styles de lutte qu'on a la lutte libre et la lutte olympique mhm. ça pour nous arranger et ça allait arranger tout le monde donc autorité nous, ñoom xol gis ci sen bop ñi développement sport c'est pour le développement de la commune ou du pays donc ñom duñ ci jappé ba sport bi développer dans leur commune c'est développement de leur commune parce que bu ñu tel athlète gagné na dañuy très fan la dañuy ah le maire peut-être mu ngi liggéey wala wax ñu ngi mhm. mais bu amul rek euh, man je pense que dañu wara a sen bop par rapport à la pratique sportive du moment où la Casamance regorge beaucoup de qualité surtout physique par rapport à la pratique sportive généralement. Mhm. donc war ni si taxaw tabax ay sale ay terrain de basket ay terrain de foot. Mhm. pour que ñep ku nekk li pratiquer avec aisance. Mhm. parce que Right to Play euh, d'après les échos que j'ai eus. Mhm. est prêt à réhabiliter. une salle euh, qu'on a une salle communautaire qu'on avait et Right to Play veut réhabiliter cette salle pour qu'elle soit une salle multifonctionnelle. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont avec les la localité. Je n'ai pas encore demandé au maire, mhm. mais je pense euh, pouvoir. le maire de Moulamp. le ma du moment où la majorité des champions du département viennent de sa commune. Mhm. parce que bu si taxaw man vers lui. Mhm. il faut il faut ñu xool nan avec les autorités coutumières ñu xool nan la pour les parce que am nañu des champions. comment faire pour maintenir ces champions et créer et avoir d'autres champions. c'est avec les autorités pareil qu'on peut discuter et trouver une solution. macha allah maire bi Idrissa Sambo Senghor Idrissa Senghor maa Evelyne Diata on se connaît un peu maa Nyan, lay ñaan. nga sport parle pas de la lutte seulement mm-hmm. mais du sport en général dans dans la commune de Moulon tout à fait nous appel bo xam ñun aussi dañ koy réitérer ah, ñun wa TV ak Génération FM parce que gis nañ les champions yu génnee à travers le judo à travers la lutte tout récemment les juniors sont allés décrocher des médailles d'or lors du championnat du Sénégal ak Afrique aussi donc euh, autorité bi nga xam mo jité commune Mlomp ñu la koy ñaan aussi maire euh, département commune bi nga département muy aussi ben stade la am projet 46 stades département départementaux aussi ne ci bokk bés bu paré ngir yalla nañ ci jagleel salle bo xamné c'est pour les sports de combat une salle bien équipée qui respecte les normes des des compétitions kon mbok yi dañuy bàyyi suñu invité mu tagato après ñu tëj suñu émission Evelyne loy tàggoo. man ma ngi leen di remercier yéen ñi nga xamné ne yéen a ñëw vers moi neen ma da ngeen bëgg def interview ak man parce que ça fait partie de ce qui peut faire la vulgarisation de la pratique sportive, mhm. dans la lutte. di remercier aussi ce monsieur Gay qui nga il n'est pas du milieu sportif mais il faut comprendre. bu daf une femme qui fait du sport qui qui voyage tout le temps et laisser son mari à la maison c'est pas évident. que mhm. ko gërëm que aussi mes parents sama yaay ak sama papa parce que ñu ngi dund. Mhm. parce que pour l'éducation qu'ils ont eu à faire à me donner. Mhm. parce que bu dul lolu buñ ma jox loon benen éducation peut-être du démé ni tay ma ngi leen di gëreum di gëreum aussi bu baaxa ba baax képp koo xam ne euh, mu ngi def lu melni pour vulgariser sport Sénégal ma paré terminer par gëreum right to play. bi nga xam ne tey moom moo tax ba man ñun ñu xamante. Mm-hmm. parce que bu ñu ma invité wu loon du ñu gisee. donc right to play chapeau à e di leen ñaan ñu yàgg fii. te def ay investissement yi gën a rëy yi mhm. voilà voilà macha allah donc ñu koy gërëm aussi moom mi nangu nekk suñu invité tey ci li nga xam ne moom mooy suñu émission sportive nga xam ne dañ koy amal ni ma la ko waxee ñaari chaîne Oussouye ak Ziguinchor c' est pour la Casamance c' est pour l' intérêt du développement du sport de la Casamance avec scène, Avenir TV ak Génération FM ñu leen di jox rendez-vous ci beneen numéro incha allah ci sport lu wàllu jëm ci départ région bu en général merci beaucoup di gërëm bu aussi suñu technicien suñu caméraman euh, parisien bu baax a Idrissa Manga borom borom usu yi di aussi suñu monteur parce que xam nañ ne bu liggéey bi aussi def na ci wàllu am solo muy Xavier Mendy Génération FM di leen jox doj daje ci beneen numéro Inshallah. allah jërëjëf